alors venons-en à la société civile Mame Adama Gueye 92 euh, da ngeen accompagner les acteurs politiques pour que ñu mettre en place le code consensuel code consensuel boobu euh, de manière générale euh, suñu processus électoral yépp à part quelques ci la tënku et c'est avec ce code consensuel qu'on les alternances démocratiques Sénégal fait crise politique boo xam ne dina impacter suñu diplomatie dina impacter suñu géopolitique dina impacter suñu situation euh, économique dina impacter l'emblème euh, de notre de notre pays au lieu ngeen di dem ci front de radicalisation aux côtés de l'opposition qui conteste le report là est-ce que du rôle société civile ngeen jouer encore le rôle de tampon comme vous l'avez fait en 2000 euh, en accompagnant le processus démocratique en parlant et à Abdou Diouf et à Ablaye Wade et au de l'opposition est-ce que tey jotul aussi ngeen ñu mel ni yow ngeen taxaw nekk arbitre waxtaan ak opposition bi dem waxtaan ak président de la République qui est le le le le le, le garant du bon fonctionnement des des des, des institutions ba ñu am une solution qui va honorer le Sénégal. mais bien sûr loolu bu mënoon nekk bu mu am man dama joxe exemple concret bi mu amee jafe-jafe yi fi à l'époque manifestation euh, bi ñu bi problème Sonko bi am bi ñu ko convoqué mu indi coow et tout moi j'ai pris l'initiative personnelle oo oh, Diomaye Faye ne ko dama bëggoon waaw si vous êtes disponible pour que. ñu waxtaan. def intermédiation créer les conditions pour que bon bu bu ñu assurer les conditions pour que Sonko buy dem tribunal du am problème mu ne ma amul benn problème ma contacter des hautes des des des, des hautes sur ça faalewuñu ma sax. mais foogoo ne situation bi. c'est différent non non faalewuñu non mais dama ne xam nga la question qui se pose dañuy ban ñun on va man de en tout cas duma ma servir si yenn excès yi c'est-à-dire que tey man je suis dama mës a wax ne dialogue lu mu defaral du ko yàq mais boo defee lu la neex parce que tey su fekkee ne dafa am concertation peut du ñàgg fi loolu boo ko ñëpp doo ko tranché yow kenn boo bokk ñëpp da ngay woote bu fekkee ne avant saa nga concerté woo diw woo diw ne ko lii laa xalaat lii laa xalaat bu jox la xelam jox la xalaatam bu jafe-jafe amee kooku boo ko ne ah doo si jóg mu jóg ci parce que am na lu ñu ko si cëraloon waaye yow jël def lu la neex waxtaanee ko ak kenn après ñu ne nañ ñu ñu jóg di régler ay kii man du ma cautionné loolu. non pas caution. non non non dama ne dama ne. mais permettre aux acteurs de retrouver la raison non c'est-à-dire la raison en fait aux acteurs il y a un acteur qui qui qui est le responsable de la situation c'est le président Macky il faut être objectif c'est pas aujourd'hui il faut, faut être objectif du situation bi du conflit moo ko indi y a pas de conflit bu amoon conflit nga ne waaw léegi da ngay dem seeti diw seeti diw kenn moo xëy waxtaanee wax kenn def lu ko neex loolu du conflit. mais pourquoi société civile bi mënuñu dem waxtaan ak président de la république. non mais la la question ki xam na loolu président de la république man dafa am condition yoo xam ne boo ko defaree def jëye tey parce que tamit am na yoo xam ne c'est tellement grossier prolonger sa mandat tuutiwul xam nga y a des problèmes qu'on bon c'est pas parce que mais mais bii dafa rëy c'est énorme violation flagrante de l'état de droit man xam nga dama ko yàgg wax bu ma koy wax ñu ne dama exagéré mais li ma koy firndeel nee naa lañ Sénégal amul état de droit amul démocratie amul république nos autorités gëmuñu principe yooyu loolu moo ko indi parce que tamit am na discussion yoo xam ne pour mu am da wax ay ñoo xam ne am nañ une certaine culture de l'état de droit quand en deux en quatre-vingt-dix-neuf on a fait l'intercession boobu y avait forum civil ak Alioune Tine man ak Mouhamadou Mbodj euh, ak euh, euh, Mazid Ndiaye de la RADDHO mais bi coow amee dañu dem wax ay nit mais on a trouvé des gens ouvert je me rappelle très bien c'est un matin j'ai pris mon téléphone tension bi am Ablaye Wade ne élection du fi am tant que les cartes israéliennes là xaw ma ndax fàttali wu ko retiré wuñ ko j'ai pris mon téléphone en accord avec suñu gars yi woo général Lamine Cissé ne ko on veut intervenir est-ce que mën naa la seet si mu ne ma ñëwal ma ñëw toog ne ko ñun dañu bëgg intervenir est-ce que d'accord ngeen mu ne ma may ma woo président Abdou Diouf Abdou Diouf ne ko amul benn problème ñu jógee foofu l' après midi ñu dem fekk waa opposition siège à JPADS waxaa ñoom ñu ne amul problème ñu dox ko dox ko dox ko ba def euh, l' du fichier électoral sur la base duquel ok puisque c'est la société civile je suis d' accord mais on a parlé à des gens qui étaient voilà mais aujourd'hui conditions yooyu moo réunirul parce que c'est pas un conflit c'est une démarche délibérée de violation de la loi tentative nag mën naa ko nangu mais léegi même pour démarche am day am un signe parce que dialogue pour moi yàppa n'y a pas à dialoguer il n'y a le respect de la loi le respect de la constitution ne seen négocie pas c'est au-dessus de nous tous ça ne se négocie pas du négociation lan ngay toog ne ko non waa may nañ la lii wàññi lii waa yow mën nañ la may trois mois mën nañ la non sañuñu ko lii yoon wax lañu ñu war a def loolu moo ñu fete kaw ñun ñëpp donc dialogue pour dialogue moi je suis pas pour dialogue pour dialogue dialogue day nekk ci cadre lu lu yoon mayee moi je suis pas du genre ñu ne dialogue comme les histoires entre politiciens et tout ça état de droit laa gëm lu ñu teg ci yoon mën nañ ko waxtaanee waaye bu fekkee ne da nga xam yoon mu wóor ma ne yow xam nga yoon ma analyser situation bi ma xam ne lii lii am dañ ko lal muy pexe ku ma ci woo du ma la ku ma ci woo du ma la parce que man man man j'aime pas perdre du temps je de très bonne volonté mais bu ma xoolee mu am conviction que kii li mu def moo ko tey je perds mooy na respecter la constitution. jéem na la preuve attends bu fekkee ne yow may mun a nit nit nag dangay dangay da ngay boo defee biir. tout ce qu'il y a dans ce pays de significatif ne la ànduñu si xanaa nag war nga seetaat sa bopp tout la communauté internationale ne la si doo seet sa bopp on peut toujours reculer y pas de problème loolu y a pas de honte de dellu gannaaw soxlawul xëccoo tout ce qui est significatif dans ce pays parti politique société civile syndicat patronat ñëpp tout le monde dit non personne n'est d'accord sur ce report à part un groupuscule politique un parti fracturé ñooñu ñoo si ànd waaye ñun. Ah, mais nañu wekk si.